wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu loqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa mursida yi وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di leen ndokkeel ci weeru màgg yi ñu ne di weeru safar di weeru sëriñ bi radiyallahu anhu ñu ci ndokkeel jullit ñépp rawatina taalibe yi comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yeen ci suñu jataayu xam-xam yi nga xam ne ci lañuy fàttalentendoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu suñu jataay yooyu lañuy ñuy wéyal ak yéen rek suñu mbind bi weesu nag ci lañ doore téereem bi nga xam ne moom lu tudde jazbatu sixaar yi an laabin la xidmatil muxtaari téere boobu sëriñ bi tudde noonu moom lañu door ak yéen ci suñu bind bi weesu waaye fi ñu wàcce woon suñu kàddu ci bind boobu mi ngi tolloog fi sëriñ bi doon wax ne wadaama man lam yattabia munxarita fi silki iblis allazi xat afrata kon fi tàmbulee bind gu bees bi tey mooy fi sëriñ bi radiyallaahu anhu di waxe ne at taarifu bi aqsaami diini lii ab xamle la boo xam ne daa jëm ci xaaji diini maanaam diine bu ñu ko waxee dafa am ay xaaj léegi xaaj yi nga xam ne moom la diine am moom lañu sëriñ bi radiyallaahu anhu bëgg a ci bunt bi mu ne li diini aqsaamun li diini ñeel na diine aqsaamun ay xaaj badat yooy feeñ na tibyaanan di aji leer xaaj yooyu al imaan mooy al imaana te mooy gëm yàlla gu dëggu wal islaama ak lislaam wal ixsaana ak bu rafetal sëriñ bi radiyallahu anhu nee na loolu moo di xaaji diine xaaji diine bu ñu ko waxee mooy iimaan la ak islaam ak ihsaan te loolu yaakaar naa boo demee ci yeneen téere yu mel nii tasawudu sigaar ak tasawudu subbaan téere yu mel noonu itam lim na fa li nga xam ne mooy xaaji diine nga xam ne ñetti xaaj yooyu kon ci la diine tënku mooy imaan ak lislaam ak ihsaan al iman nag kom ni ñu ko waxee woon ci suñu bind bi weesu mooy pas-pas maanaam nit ki pas-pas bi nga xam ne moom la ame al islam nag buñ doon wax mooy nit ki euh, ponki lislaam yi nga xam ne moom lay jëf muy jëmmal li nga xam ne moom la fas ci ab xolam waaye al ihsaan mooy lan mooy loolu nga xam ne moom lay jëf mu fexey ba mu rafet waaye mu fexey ba mu am ak sellu gu Euh, sell waaye jëf ko te jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala rek tax euh, ñett yooyu nag moom la sëriñ bi doon wax ci euh, lenn ci ay mbindam ne maanaam ussu tariqati al imaanu bi tawxiidi wal islaamu bil fiqhi wal ixsaanu bi tasawufi na li nga xam ne moo fonde yoonam wi nga xam ne moom lay tajdiida di yeesal li nga xam ne mooy woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa ci ñett yooyu rek la ko tënk mooy ci imaan joo xam ne ci tawxiit lay tegu waaye ja ak islaam joo xam ne ci fiqh lay tegu waaye ci ak ixsaan joo xam ne ci tasawuf lay tegu ñett yooyu ñu tudd na benn bu ci ne ab xam-xam la boo xam ne itam ngir nga mën a am dëgg-dëgg iman faww danga xam li nga xam ne mooy xam-xamu tawxiid xam ni ñu war a wéetale yàlla ak li nga xam ne moom la yàlla euh, digle ñu war koo gëm ak pas-pas yi nga xam ne moom la ñu war a amee waaye itam loolu boo ko fasee pas-pas yooyu boo ko amee muy pas-pas yu dëggu ba pare itam li ñuy tuddee al islam day ñëw te al islam moom faw mënta dem te xam-xamu fiqh àndut ak moom ndax xam-xamu fiqh boobu ci la nit ki di doxe di xam li nga xam ne mooy attey sharia yi lenn lu ne la nga xam ne moom la ci suñu borom bi subhaanahu wa taala atte ci sharia su ko defee loolo moo koy dimmali ba lislaamam mën a ñoŋ waaye lislaamam mën a tege ci aw yoon waaye itam li ñuy tudde al bala nga xam ne mën naa jàkk euh, nit ki man koo jëfandikoo comme ni nga xam ne noonu la nu ko sëriñ bi radiyallahu anhu diglee fàww li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf mu am ko ndax xam-xam boobu mooy li nga xam ne moo koy gindi waaye moo koy teg yaaw yoon ba mu mën a rafetal kom ni nga xam ne noonu la ko bëgge waaye euh, lislaam jooju nga xam ne moom la ñuy wax itam euh, am solo goo xam ne am na ko solo sëriñ bi radiyallahu anhu itam xam ne fiqh maanaam lislaam nit ki balaa lislaam mu mën a wér fàww dafa am xam-xamu fiq bi nga xam ne euh, moom lañuy euh, euh, moom lañ koy mën a ràññetle waaye ci lañuy ma nga xamee li nga xam ne mooy kon lislaam jooju dafa am solo itam bu baax a baax waaye bala moo mën a nit ki nit ki doomu aadama bi balaa lislaam moo mën a jàkk maanaam faw lislaam jooju ànd ak xam-xamu fiqh te lislaam ku ne dafa xam ne ku ne war naa xam ne lu ama am solo la ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne lislaam jooju nga xam ne moom la yonente bi saa sallam andi woon képp koo xam ne jàpp nga la wuuteeg loolu rek na nga xam ne ëllëg loolu kon lislaam jooju ci la suñu borom subhanahu wa taala wax ne képp koo xam ne jàpp nga Euh, lenn lu dul lislaam rek na nga xam ne ëllëg ci way pertaan ngi ngay bokk moo tax mu ne wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil axirati min al kon ñetti xaaji yooyu nga xam ne mooy xaaji diine benn mënu cee dem bàyyi sa moroom dafa mel ni jëmmi doomu aadama rek ak ruux gi ak euh, wàccaay wi nga xam ne moom lay waaje te mooy yére yi nga xam ne moom lay waaje ñett yooyu yëpp benn mënu cee dem bàyyi sa moroom noonu la xaaji diine yooyu mel nga xam ne euh, benn bu ci ne day mottali moroom ma waaye benn du ci dem bàyyi sa moroom waa illaa su fekkoon ne benn dafa dem bàyyi moroom ma itam bu boobaa euh, nit ki la nga xam ne moom la war a jëf dëgg-dëgg te mu war a mat ci anam ga mu war a mate du ni du du du mate noonu euh, ndax nit ki bala moo jëf li nga xam ne mooy Euh, ndax nit ki bala moo jëf li nga xam ne mooy euh, li aju ci ponk yi faaw dafa am pas-pas ba pare pas-pas ba muy amee mooy pas-pasu gëm yàlla waaye gëm li nga xam ne mooy yonent bi gëm yeneen yi nga xam ne moom la ci borom subhaanahu wa taala toftal yëpp su ko defee mu doog a mën a jëf li nga xam ne mooy euh, santaane yi nga xam ne moom la moom la suñu borom subhaanahu wa taala digle ñu war koo jëf sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu leeral nag euh, pas-pas yooyu nga xam ne moom la ñu war a gëm loolu nga xam ne nag mooy ay pas-pas yu ñu war a gëm bu ñu xoolee yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne euh, yu ci bëree bëri dañ koy dañ koy dañ koy dégg rek dañ koy dégg rek gëm ko fas ko ci ab xol waaye yu ci bëri mën ngaa bañ a sax mën nga cee sax a bañ a mën a euh, teg loxo yu ci bëree bëri mën nga cee bañ teg loxo moo tax sëriñ bi wax ne fa awwalun bi ci jiitu ci yéen war gëm yooyu mooy imaanukum seenu ngëm billaahi ca yàlla wabil malaayikati ak malaaka yi jundillaahi te malaaka yooyu ñooy soldaari eh, suñu borom bi subhaanahu wa taala wa bi jamii rusulihi ak mbooleem li nga xam ne mooy yenentam yi wa bil ak li nga xam ne mooy mooy eh, eh, dogal bi ay li mu ci namm xayri yi mooy dogal yi nga xam ne yu neex la di bànneex aw charri yi wala mu di dogal yoo xam ne aw naqar la àndal wala aw tiis xay su fu mu fi feeñi sëriñ bi radiyallahu anhu nee na li ñu war a gëm mooy lan mooy bi ci jiitu mooy nit ku ne war naa am pas-pas bu leer ci gëm yàlla gu wér fenn gëm yàlla gu leer gëm ne suñu borom subhanahu wa moom lépp lu ñu ko melale te mu yey ci jëmmam ji rek gëm ne loolu lu ñu war a gëm la ci suñu borom subhanahu wa taala te ni ñu war a gëmee suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi dina la ko leeral benn bu ci ne ni ñu ko war a gëmee ak lañu ñu ca war a gëm sëriñ bi radiyallahu anhu dina ko leeral ci biir téere bi waaye bi jiitu ci pas-pas yi ñu war a amee mooy ñu gëm suñu borom bi subhanahu wa taala Euh, euh, li nga xam ne mooy euh, gëm yàlla nag imaan buñ koy wax nag li nga xam ne noonu la ko borom xam-xam yi ñenn ñi di tafsire mooy dañuy wax ne al imaanu maa waqara fil ñu waxee imaan mooy loo xam ne dafa sax ci ab xol waaye ay jëf moo koy dëggal maanaam nit ki su fasee ci su xolam ne moom gëm na suñu borom subhanahu wa taala kon liy dëggal gëm boobu mooy lii yàlla di digle ci ay ay ay ay ay ay ay jëf na ca nekk waaye li yàlla di loo nit ñi te di ko tere na koy na koy moytandiku baax a baax bañ koo jege wa wabil malaayikati ak gëm li nga xam ne mooy malaaka yi gëm li nga xam ne mooy malaaka yi ndax suñu borom subhanahu wa taala euh, malaaka yi daf leen a sàkk euh, jox leen ay mission waaye ñun teguñu ci euh, bët ci malaaka yooyu waaye lu ñu war a gëm la ndax suñu borom subhanahu wa taala moonu digal euh, ñu ñu gëm leen kon dañ leen a war a gëm te malaaka yi ñooy ñooy soldaare suñu borom subhanahu wa taala waaye niki noonu yi tamit bokk na ci li ñu war a gëm ba tey euh, fas ko ci suñu xol mooy gëm mboolem yonente yi te duñu ci am ku ñuy bàyyi ak ku ñuy jàpp képp koo xam ne euh, dañ ñoo nettali ci alxuraan ne ab yonent la woon wala ñoo xam ne sax nit leen ñëw jaar-jaar bi waaye ay yonent lañu woon suñu borom digal ñu war leen a gëm ñoo ñëpp dañ leen a war a gëm te amuñu ci ku ñuy jàpp ak ku ñuy bàyyi ndax loolu la suñu borom subhaanahu wa digal kon doonul ne yonent bi nga xam ne moom la moom lañ yónni ci ñun rek moom la ñu war a gëm waaye yonent yëpp lañu war a maase gëm ndax loolu lañu suñu borom subhanahu wa taala digal képp koo xam ne dëggu na ne wér na ne ab yonent la rek kooku suñu borom subhanahu wa taala digal nañ ñu gëm ko te dañ koo war a gëm comme ni ko borom bi subhanahu wa taala diglee wabil xadar yi niki noonu itam noonu lañ war a ab dogal dogal nag ñaari xaaj la am na ci dogal yoo xam ne dogal yu neex la ndax suñu borom bi subhanahu wa bu dogalee tey Eh, nga am ab tout tànk wala nga demoon ziyaare ji eh, kaabu gi ba ñëw yooyu yëpp ay dogal la oh, loolu lépp ay dogal la waaye dogal yu neex la yoo xam ne bànneex la waaye itam dogalu safaan mën naa am lu mel ni suñu borom subhanahu wa bu jëlee ci jaam ñi nga xam ne ñoom la bindoon bu ci jëlee kenn faat ko walla mu teg la eh, feebar boo xam ne feebar bu oh, méttee métti la yu noonu ay dogal la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa lay tukkee bu ay dogal yu naqari la waaye nag teew dogal yi bu mu ci manti doon rek da nga koo war a gëm bu fekkee bu neex bi la nga muñe ko muñ ko sant suñu borom subhanahu wa taala ko teg waaye bu fekkee dogal bu bu bu neex bi la itam nga nga nga nga nga sant ci yàlla waaye jëfandikoo kon comme ni nga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala digle nga xam ne dogal bu neex bi dogal bi moom imaamu neex imaamu naqari bu neexee war nga cee sant suñu borom subhaanahu wa taala waaye jëfandikoo ko ci anam gi nga xam ne noonu la ko bëggee waaye itam bu naqaree itam war nga koo muñ te xam ne suñu borom subhaanahu wa moom mooy ki nga xam ne moom mooy euh, moo digle euh, loolu moo digle ak muñ waaye dogal itam moom moo koy wàcce ndax euh, muñ dafa doon lu ama am solo loo xam ne Euh, nit ki euh, su fekkee ne aw tiis daf koo dal wala euh, lu mel ni feebar wala dara dañuy bëgg ca saase rek fa mu ko dale na fa dale ak muñam waaye bu mu def ay pexeem yépp ba xam ne lii nag mënatu ci dara mu wëlbatiku naan damay muñ bu boobaa loolu kenn dootu ko tudde muñ waaye ak ñàkk pexe lañ koy tudde ndax loolu am na ku mu dalal ci waay juróom faatu woon mu dem ca bàmmeel ba di ko jooy ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa ba ko fa fekkee euh, ne ko bàyyil jooy yi yëkkati ko mu daal di euh, jànni yonent bi te boobu xamul woon ne yonent bi lay waxal waaye ba mu fa jugee nag ba dellu bañ ko xamalee ne ki doon wax ak yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moom nan la def daa dawaat dellu kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, di ñaan yonente bi ngir mu jéggal ko yonente bi nag ne ko a asabru inda sadmatil ula maanaam euh, na nga xam ne muñ ko fa mu amee solo mooy fala musiba ma dale dal nga dale fa sag muñ kon dogal moom mënta ñàkk te benn mu neex wala mu naqari bu fekkee ne bu neex nga sant ci yàlla waaye bu fekkee ne bu naqari itam nga muñ ko te xam ne euh, lépp lu suñu borom subhanahu wa taala dogal rek mooy li nga xam ne mooy li war a am kon euh, loolu ay mbir la yoo xam ne yëpp dañ ko war a gëm fas ko ci suñu xol muy doon yu ci bëree bëri yoo xam ne daanaka day day xew waaye euh, doo mën a jël sa baaraam teg ki ndax boo nu waxee dogal tey mënoo jël sa baaraam teg ni liyee dogal waaye bu xewee rek nga xam ne ab dogal wàcc na buñ nee malaaka yi mën ngaa gëm malaaka yi waaye euh, xamoo fu malaaka yi nekk buñ nee suñu borom subhaanahu wa gëm nga suñu borom. waaye buñ neeraa fu yàlla ne munoo xam fan la ne buñ neeraa yonente yi ñoom ñi nga ci gën ñëpp daanaka euh, jamondoontew ñu ak ñoom waaye euh, seeni nettali ak seeni jaar-jaar rek lañu fi bàyyi te suñu borom subhanahu wa taala digal ñu ci alxuraan ñu war leen a topp euh, kon yooyu yëpp ay pas-pas la yoo xam ne jullit bi daf ko war a gëm te gëm ne suñu borom subhanahu wa moo ko digal mu war koo gëm Euh, kon yooyu yu ñu war a gëm la euh, fas ko ci ab xol te jëmmi yàlla rek tax kon bu ñu dikkaatee incha allah dinañu continuer ci euh, yooyu ñu wax lenn lu ne la nga xam ne moom lañ ci war a gëm incha allah dinañ ko leeral ñoo ngi tuub bu baax tey jég ñoo ngi tuub bu baax tey jéggulu di dogal ñëpp ngant di wax ne in uridu illa l-islaaha mastata'tu wa ma tawfiiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu